alhamdulilah alhamdulilah alhamdulilah. الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا ولي الفاتح ما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم wa ala alihi xaqa qadri wa miqdaar azim mbokki Malben ñi koy seetaan ci biir réew bi ci réew dikk nañ di leen nuyu de eh, di leen ndokkal ci weeru mag wi muy weeru rajab eh, rajabul fardi mooy rajab yi nga xam ne weeru kenn la weeru benn la weeru kenn la ah weer wi nag <clears throat> mbir mu nekk nag ka ca feeñ mooy wane dayoom kon nag Cheikh Ibrahim Niass radiyallahu anhu moo ci feeñ ca fukki fan yàq juróom ci bésab xamis la woon loolu yëpp benn butin junj la bu la xamal kon nag eh, li ñuy wax xilaafa ak silul xilaafa ñoom ñoo dikk euh, feeñ tay ba nag liñ ko wax na ma ko woyee woon rek dafa nekk dëkk boo xam ne dafa doy waar ca tuddin wa mooy taybatu bu dee ci arab mooy taybatun bu dee moom mooy lu teey waaye tay ba lañ wax mooy luñ tay ba ko ni ma ko xëyee Tayba euh, lu xaab wolof la woon mbóot lañu ubboon tay kafa woon Baay Ñas juddoo Tayba Ñaseen Tayba waaye boo déggee ci tariqa bi kat mi kay mëkk noon mooy luñ dugal ci da biir denceekaay denc ko fa ah denc ba nag anbiyaaw dikk nañ ba wéy su lekkuwul awliyaay dikk ba wéy su lekkuwut gannaaw bañ demee nag la génn nag moom ca fam nekkoon ku ko génne nag la ma maa Abdoulaye Niass lam tayoon te nee na fàng dem daw si leen kon nag xamaa yi daw leen dem leen tay ba yéen mais maanaam ñu gisul xam lu xew le ñu tay ba leen tay bu mooy garab yi ñuy def pour bët bi gisul gis ñu tay ba leen ngeen gis la woon maa Abdoulaye Niass lam tayoon te nee na fàng daw si leen kon loolu moom dëgg-dëgg yàlla ñun fi feeñee borom tay bu fi mu feeñee dafa feeñ ci feeñee boo xamante ne ku leer naññi la moom la ma wax léegi ñu ngi ko ma ko wax ka juddoo ci xaynul maadi dëkk ba ko tudd kon nag dëkk bu du tuxul waaye waajo feeñ mooy dëkk ba jëmm jëy wiy ndaxte kenn ku ne bàyyi ne na ah waxoo maaka daa iman Cheikh Tidiane ma yow ana foo mën a nekk rek dina ànd kooku moo xam nga bu fekkoon ne ma nga toog fële kon du nekk ay nul maadi ah, kon nag buñ dikkee fii ki feeñ ñu ne tay bax luñ tayoon ba ko fi ki ko ubbi nag mooy alxaaji abdullahi moo ñu ubbi ko mu génn waaye juddu ca tay ba ña seen tay ba googu nag ñi fi nekk de saalum saalum ñoo ko gën a réeree bari na ku nekk ca gox ba sax te xamoo luy Taïba ndax jël nañ ay yeneen dëkk jox ko importance bu ëpp Taïba fekk nag borom moo bëggee noonu ndax léegi te ñu jàng su ko ci li ci misri wax ak seyxaan liñ ci wax seyxaan yi boo demee ci téere bi ñuy wax afaqu chéri bi nga xam ne Ahmed Ibn Abdallah moo ko def ci paas 21 ba ma ngay wax ci tay ba nee na xaaja fil qalbi kullu sajwin dafinin mawlidu seyqi henda tay ba ña seeni xaaja yëngatu na fil qalbi sama xol alif ak laam moo ci moo ci demee fi qalbi sama xol la wax lan la ca yëgat la sëj win bépp njàqare dafin yoo xam ne ñu nga fa robo njàqare ya suulu woon ca sama xol ba am na lu ko yëngat ñu ne ko ma seyxaan lu yëngal loolu mu ne mawlidu seyxi juddu sëriñ ba xend tay ba ñeseen ca tay ba ñeseen juddu googa moo yëngal sama xol man seyxaan ah, ah ñu ne ko nu demee mu ne barasat min asaya eh, aysu badali safaratun mënotatun bi aniini barasat génn min hasaaye sama digg dari biir yi diggante ñaar dari biir yi mooy walli xay su badaa ba feeñee lii ñel ma man ba mën a jàkk tey ba rek ah dafa am lu ne bërit génn ci man muy lan safaraatun ay yijjët ah moo commencé ah mënoo boo xam ne dañ koo aj bi andi nit ay jooye ko onk man ba ma séen tey ba mënumaa sama rong ji ma commencé boole ko ak onk wali qalbi ladayhi min ihtiraqun wali damhi tahallubun min jufooni wali qalbi ñaan sama xol ladayfa Tayba itiraaqun ay lakk minu ba ma gis Tayba rek sama xol baa ngay lakk wala dam ñeel sama ruma ja taalubun rattu min jufoon sama mbari ba di sama roma ñaa ngi waam bàyyi ko sama mbari ba di man si xañ saa yi xif bii saa yi xif bii bi afaru xaddi wa jufooni min tur bii wa jëbii ni saa yi bi la bëggoon wax waaye wéyoo tax ay yow sama àndoo bi xiif taxawal bii ànd ak man bii ca tey ba taxawal mag ñun ñaar nañ taxaw ñoom nag buñ ko wax mooy seen àndoo mooy mbëggeel taxawal tuuti su ko defee afur ma ruut xaddi sama lex may ma rek ma wàcce jël sama lex yi dem ko ci suufi tey ba yi wajjufoo nii ak saa mbër yi mbët yi ah ma sujjut min tur bi ci suufam wa jëbbi ak sama jëb yëpp may ma rek sama lex bi sama mbari bët sama ah, jëbi may ma rek tuuti rek ah, inna min turbatin ah, inna min bada kullu turbin wa tabada min yoonihi kullu yoonin <laughs> di teel bi min turbihi ngi bàyyi koo ci suuf suufam sa ba daal feeñee kullu bi bépp suuf ca suufu tey bala feeñee wax <laughs> suuf yépp ma nga génne ca tey ba ndaxte bu mooy taraba yareekaay rabba taraba kon nag lépp loo xam ne ma ngay yaru de focc di génn ma nga génnee ca ba nga xamante ni moom wa tabada min yoonihi kulli yooni yoonam wa nag yoon moom jaar yoon yëpp ñu nga jaare ci yoonu Tayba defe naa moom la si jublu fuy yoon woo gis mu yoonu siraatul mustaqim ma nga bàyyi ko ci yoon boobu ayyuhal mawdul karimu fa inni bi ka soolaw atin wa sawqin rahini ayyuhal mawlidu e yow juddu ah, ban juddu baay bi alkarim bu tedd fa inni man say xànde yi bi ka ceew soo law atin borom lakk xollaa wa sawqi soo mbëggeel gi rëyinu ñu ko tayle de man xam nga buñ jëlee sa luñ la tayle tayle boo xam ne borom du ko jëli du ko du ko jël si mooy tayle mbëggeel suma mbëggeel gi yow laa ko tayle in takun amilan fa innaka baaun baarisun minka kulla rain wa sin wa siini boo nekkee xaamilan bu fekkee ne ndëkk nga boo xam ne xamuñ yaay kar sax ndaxte bari na ko dégg tey ba xamoo luy tey mooy xaamil bu dee danga nga nekk koo xamante ni ah ak luñ la ñàkkaa xam a xam ak luñ la fonka di fonka di fonka di fo ina kayo dey ba un yaay baa de baa yow la baa di suñ génne na mi ngi ki cëw ku la raa in wu siin siin bépp raa ak siin cëw la génne yow yëpp ci yow rek baa gi yow de yaay baax yow mii buñ xamu tay ba tay ba yaay baax raa ak siin goo fi gis ci yow la génne ak siru boo gis rek أو يكون فيك بادرين فكم حن كل قلب بك إنجلا كل رين إن يكون بنك فيك تشاو بادرين lenn goo xam ne ñàkk a xàmmee xol yi maanaam xol yi bu fekkee ne dañoo fatt ah yow bu dee xol dañoo takk xamuñ la fa kam han kulli qalbin bi kay da maanaam fa kam xat jalaa bëri na fomp xan kulli xalbin bépp xol bi ko cëw kulla réynin bépp tilim tilim bu nekkoon ci xol xol yi buñ tilimee ba xamuñ la bëri na xol yoo xam ne cëw lañ fompoo ba set wecci ba xam la xew li waaye nag nit ñi dañoo tilim ba xamuñ sax tey ba am na ñoo xamante ni ñu nga ci digg tey ba am ñoo xam ne ñu nga dënd ci tey ba te xamuñ ñu nga day romb tey ba xamuñ liy tey ba tey ba dafa dëkk ordinaire déedéet yaay baa goo xam ne ci la sin ak ra ak sin génnee yaay dëkk boo xam ne xol bu ci tilimiet yow yaay fomp xol yi bay set wecc kàllaa la xulu bi maakaano yeg si ban bi alquran di wax ban na xol boo xamante ni foofu la pompo maa ngi ñaan gars yi nga la waay buñ demee tay ba waaye nañ fexe xol yi fomp waay mawlid si teyki in yëkku ah, eh, in ah, in na baynaka yëbdoo maa kullil biqaa yi asumo booni mawlidu Cheikh yow juddub Cheikh Cheikh Ibrahima ah, inna baynaka yëpp doo sa diggante lay feeñ kulla biqaayin bépp teenee boo xam ne ah sama bow nin li gën a màgg ci mànding bow nu mooy firi mànding yow yow terrain yi nga xam ne ñoo gën a sori ay ligne bi maanaam Manding yow mii nii ah boo fekkee ne yaa fi nekk fii ñu lay xool nii Tayba in yëkku yëpp doo maa kulli baqaay asom ba ni yàgg na màgg ci terrain yëpp maanaam Manding yëpp suñ la xoolee sa tutaay si ñu ne dëkkab kaw la <laughs> déedéet ah yow yàgg na màgg ci nga xamante ni mooy Manding تلعب في برج سعود السعودي متى قد بدا فيك سمت علم ودين تلعب فيك في برج السعودي ci biddiw taxe min eh, matema xat bada yow tay ba yaa fenk ci biddiw taxe kañ ba nga xam ne feeñi caw mm, samsun jant samsi elmi jantu xam-xam wa diina ak jant diina bam jantee ba mu fenkee ci yow yow Tayba yow nag ci la biddiw bi nga xam ne mooy biddiw texee ci foofu la feeñee ak lan wa tuqaa ak jant tabragal yàlla ba ak lan wantiqaalun ak jant boo xamante ni mooy intiqaal mooy jant bi nga xam ne ci la ñuy sànnee seggee li saa lil masaakiina ci miskin ya ah yow yaa dikk buñ ne miskin fii nag ñi nga xam ne dañoo soxlaxuñ dara yàlla rek dañoo dàq seen nekk ba day am fa am dara seen nekk ka yow nag yaa dikk de intiqaal segg ñi nga xam ne miskin ku la sëy in lépp loo xam ne semin mbir yi nga xam ne foor nañ am njëg gu seer tey yow yaa dikk seggal leen indi leen njëg caq boo xamante ni wala or boo xamante ni dafa dafa sert mooy or moo def xay sulu seyqi kunta maskata raxsin wabtihaajan li alamin takwini xay sulu seyqi xay su kunti ba nga nekkee maskata raxsin da wadeekaay bopp lu seyqi ñaar Cheikh Ibrahima fii la bàyyi wadale boppam xam nga doom bu juddu doo bopp ba mooy njëkk a wàcc wadd ci suuf yow bala yàlla defee yaay waddeekaay bopp Cheikh Cheikh Ibrahima lii nga nekkee nag rawe ñëpp wabti haajan yaa nekk mbégte li xaala mi tëkk win xaala bi nga xam xaala la xaala mu nekk gi yow yaa nekk de koo xamante ni mbégte aalamu tëkk win nga aalam bi yëpp fii la koy fii la ñuy kontaanee ndax ndaxte aalamu tëkk win ah muy kun kun ah ah kun kuni wa rabbi ahtaani maqaama kunkuni loolu la wax ci réeru Conakry wa rabbu ahtaani maqaama kunkuni kunkun jox nañ ma ko kunkun googu nag ñoom ñaari kunkun yooyu nag fu ñuy bigee ñi ngi bigee fi nga xam ne mooy maqaam bi nga mooy maqaamu tukkiwin bii xam nga nekkiteef fi nga xam ne fi nekkiteef yi nekkee ba mën na nekk ñu mën leen a formé mooy maqaamu tukkiwin bii bi nga nekkee yow nag yaawu yaay rotekaayu maqaam bii bégloo nga ñi nga xamante ne ñooy ah, ah, mukawinaat yëpp bég nañ ah wali aynil bu tóoni xay nu sóori wali ayni sóori xay nil bu tóoni yow wa aynu sóori yaay jëmi feeñ bi feeñ lil bu tóon ñeel bu tóon yëpp mboolem bu tóon seen yaay seen jëm saayir yaa xam bu tóon nag ay bu tóonaat yëpp fu bu tóon yow yaay seen feeñikuwaay yow wa aynul butoon yaay jëmi butoon la aynu sóor ci jëmi aynu sóor xam nga loolu mooy aynu sóor yaa jëmi butoon ko mooy wilaaya bi kële nag yaa nekk di jëmam moom yoo xamante ni mooy wilaaya bi loolu laa la bëgg a wax wali aynil butooni wa aynu sóori li aynil butoon ndax rasoolu numéro rasoolu numéro un bi moom moom moo nekk de jëmi butoon yi butoon butoon li ay lal butoon yi waaye nag bi nga xamante ni nga xam ne moom liggéey xam mooy sóoru xayoon nga xam ne mooy saayiru butoon yi yow nag saayiru bu yaa nekkat de butoonam mbaa yaa ngi dégg li wax saayiru diw la mooy mooy numéro yow nag ba nga dikkee nag yow yaa nekk de xëy na suur li bu butoon yi wa aynul butoon li ay na yi waa lii ko xamul li ma wax lii mën naa ne xam naa kii dégg nga nag kon nag kii mooy majmaal baaray ni <laughs> dégg nga de ah kon nag waa jaa ngi ni de wali xelmil yaqiini ah, ne ko wa aynul yaqiin yow yaay jëmmi yaqiin li xelmil yaqiin xelmul buñ koy wax yow xëy na yëqin nga bi maanaa gitte kaat moo tax bàyyi gis def ne man maarifatan yëqiin yan sóod yan yëqiin yan maarif bu may indi may da ngeen dikk leen moom xool ko gis ko ne lii la waaw léegi tey ñu àgg ci maarif boo xamante maarif boobu nag yow nag bu ko fa kenn wax waaye yow ba ba càggu nag da xam ne yow da ngaa da ngaa leer a waaye mi ngi nii kat misi wax na ko Cheikh Xaali ko ma ko ñu ko xusaas gee yow wa aynul yaqiini li ilmil yaqiin wa aqul yaa anil yaqin yow yaay xaqul yaqin bu ñaa anil yaqin yow xaqul yaqin nga ah nag lii nag kan ku ko wax du ustaas jëre xaynul yaqin nga xaqul yaqin nga ah kon nag léegi bu ñu dëkkee ci xaynul a xaqul yaqin nga ba ko bàyyi nag yow fi nga xam ne mooy xel mu ba bu ma hmm? yow da yaa ko def ah, mawlidun ah la si jàll maa ab dat mi xam-xamin eh, wa min takwini mawlidun barsaqi juddu bi nga xam ne nga xam ne mooy intermédiaire intermédiaire yi waa ji nga xam ne mooy barsaqul barasaqi juddoom ba moom la nga mawlidul barsaqi alasi ah jalla maa abdayta jalla màgg maa abdayta la nga feeñal lan min xam-xamin xam-xam nga naar yi moom du ñu waxtaanee baatu wolof ne li nga feeñal ci xam-xam wa min takkiwi ak kun fay kun yow juddu bii nga xam ne yaay juddu waa ji ci tey ba ñu set yow la nga indi ne ci xam-xam. ah. waaw xam-xam wa teggini ba tey ak tëggi ah tëgg dégg ah, wa tëggi wa tëggiini tëggiini tëggiini mooy teggiin loolu la bëggoon wax bi maana ba la xamante ni mu ne ah al adab waa koy filuqa mu ne boo demee mu ne li nga feeñal ci ay xam-xam ak adab bu ñu ne teggiin nag mooy ay li wax adab xam-xamu adab ak xam-xamu saay bu nga indi fii bi yàpp xaa xatiinan isaama kaana xayru xatiini fii ki yow tay ba xaal bii sama xol man say xaani yëpp xaala des xati nan fii la dëkk nag moo tax koo dem tay ba soo yëgee soo yëgut foofu la xolab say xaan nekk isaama euh, hendal gis mi taa yoo xamante ni fa yarama kaan nekk na maanaam isaa kaane hendal gis mi xayru xatin su fa yaram dëkku fii la ñu ne ma nga murtani xol bi moom génnu tay ba ah koo jàpp nag ne ma nga say xaan ma nga tay ba waaye kon li ëpp doole kay kon moom mi ngi Tayba yàlla na naan la yool euh, Tayba al ilaahu yàlla kulla habiyin bépp niir jaa boo xam ne ñëw na te joodu di ko tabe kulla raadin bépp dënn atun bokk na fay dot yàlla na yàlla taw tawala taw boo xam dafa ànd ak dënn yoo xam ne dafa naa rit rit de sut daw bi wa salaatun alal bu tóoni la si xat kaana mawjoodan qabla kaafin wa nuuni ba mu jeexalee ko rëy na ba ëpp kat <coughs> wa salaatu salaatu xalal bu tóon yàlla na bu nekk ca bu tóon ëllëg bi nga xam xat kaa nekk na moo joo dan de amal xam la kaaf ba kaaf de amal wa nuun ba kun de amul yow moo tax dama ne xetu kun moom dalu ko moom xetu kun dalu ko de yow ba ngay nekk lu jiitu xaaf ak nuun yow yaa nekkoon am nga yow kon nag yàlla na salaat nekk ci buttoon bi nga xam ne mooy buttoonu buttoon cëg nduqu nduqaan <laughs> loolu la seykaane wax ma ma mos ci misiri tuuti a ah su ko defee ñu doog a ah, daani seykaane ñu ngi koy ndokkeel waaw misiri la wax yow nag <coughs> ah waxal ñu sa sa sa dëkkuwaay ji ah, mu ne mi ngi ko wax ci paasu 40 bi ci suuf ataybata qadnil qadni laa silti hakata wala sala mamdoodan bikal ba wal misru ataybata qadnil qadni e yow taybaab qad boobu qadmu ba qad boobu ba taybaam ka laa silti yàlla bul jox hakasa comme nekk ci na nga nekke noonu yow yow xam nga kon lu xoot xool dëkk de jëmm ji nga xam ne mooy taybaab tay ba nga xam ne mooy kan mooy xan mu xan bi ndax jàng ak xan matu ak xan mu xan mi ñaari xan mu ye keneen xan mu taybaam nga yow lay woo ah yàlla bul jog ci li nga nekkee nii wala saala yàlla bu jog moom doo dan ngay ku ñu tëdd di ko caw albaru ñu nekkee ca dëkki àll ya wal misri ak ñu nekkee ci dëkki capital yi yàlla bu seen tëbb di jog ci yow ñan ñooy dëkk ca kaw ga mooy ñi xam ne xamuñu xew li ñan ñoo dëkk ca ceeru ba mooy ñu xam ne xew li xaari fii ni nga xam ne xam ne ñu xew comme na ko misri ne ak naar yi yow yàlla bul jóg leen tëbb ñoom ñi nga xam ne ñoo dëkk ci kaw ak ñi nga xam ne ñoo dëkk ci capital wala saala fiikal fayb wal ilmu wa tuqaa wala saala fiikal jësbu wa sahu wa sukk wala saala yàlla bu jóg fii ka cew tey al faydu faydu yàlla na fi sax wala elma xam-xam yàlla na fi sax wa tuqaa ragal yàlla ñoom ñett ñii yàlla buñ jóg ci biir tay ba ah xam naa ku toog ba ne ñoom nag dem nañ ministre yi moom ne ah moom day ñoom ñett ñu fi sax ñu nga tay ba de xanaa yow yaa xamu ne ñi nga ne yonent dem na Cheikh Tidiane dem bàyyi dem waaye ñi nga tay ba ak kaay ma waxal la <coughs> eh, yi faydu mooy kan xam nga xam nga mooy faydu mooy kan xam nga ne kon nag waaw xel mooy xam mooy jëm yu laay awla la xëy na ay na xel bi mooy kan ñoom ñetti yii day yàlla buñ jog ca tayba tayba nag kon mooy kan mooy borom tayba yàlla buñ jog wala saala yàlla bu jog fii ki ci yow tay fii ki ci al jës bu xëcc gaa yi ñu dellu ci yàlla fu ñu ko jëlee ci borom jës bu wasax yu uri yàlla bu mu ci yow wasukli ci yàlla wax naa la ñett indi naa la ñett léegi nag muy lëffun wa nasrun murattab léegi nag yaay seet benn bu ci nekk boroom jës bu kan la borom sawu kan la borom sukkur kan la na nga xamee nag faydu diw la xel mu diw la taqwaa diw la ñett juróom benn ngi nii yàlla buñ jog ba te buñ demee dañ leen fekk Tayba ngela gaay waaye ngay buñ dem ba ba nag <laughs> ngelaw ñibbi seen xooy nen dem Tayba ñibbi seen xooy nan dem rek nekk ca njaay maa ngenn maa maag di nga maam kumba kumba yàgg lekk yaa naan kafe yàgg nelaw faw xam nga nit ñi dañuy sonn ba ba laa guddi jot sax du ñu waxat ci Tayba dara déedéet bi Taybati xayril xalq bi Taybata xayril xalq kunti sa bihaatan fasaa maxribu fasaa maxribul aqsa wa tilka lawal fajr ah, yow kunti nekk nga yow Tayba sa bihaatan di niroot bi Taybati xayril xalq da ngaa ne Taybata a niroot Tayba Tayba moo tax bàyyi foo déggee mu wax tay ba lay waxee tay ba tay ba tay ah bi tay ba tama adraka ma hiya tay ba tun bia kullu amrin lu ma ko wax xam nga luy tay ba ñi bi ne tey dem naa tay ba déedéet dama la tay ba maa maa maa hiya tay ba tun bia kullu amrin haasimi taaqaq foofu la am mbiram haasim foofu la defee taaqu yow boo dikkee da ngaa war def taaqu ci tay ba fàtte nit ñi génnal ci nit ñi boo demee ci tay génnal ci nit ñi nga dem ci nga xamante moo tax a dikk tay loolu lañ bëgg nag yow nag da ngaa ñëw tey bëgg la de fasaa bii nii almaqribul aqsa ma sow jant ba nekk ci jëlig ba bii la Sénégal fu ko féete fu ko féete lu ko féete ni fii mooy aqsa moo tax bàyyi bu nekkoon nag labayka talbiyatan min waasilin arafa ah min kawlakin muntaha dunya ila arafa kon nag fii bu tuddee muntaha dunya du tey kon nag bii nii mooy moo tax masjidul aqsa ak masjidul qudsi ñu ne masjidul Jérusalem ñu ne aqsa ne moom la ne ne qudsi moom la déedéet qudsi benn beneen waaye ko moom aksa beneen waaye ko moom soo xamee loolu nag <laughs> kon nag <laughs> ka nga xam ne mooy mooy mooy qudsu mooy borom baytu muqaddas moom moom foofu waaye masjidul aqsa moom du foofa mooy ca jërég ba jërég salum salum wax ca jërég mooy alal ca fee ba nga xam ne dana fi ko ko yow nag bii nag moo nekk feew ca feew feeya salaatu wa taslimun ala rabbi taybatin wa alu asabin biha yarfaul qadru salaatoog salaam xaala rabbi taybatin yàlla nekk ci patron may xam ne mooy patron tay ba ba patron laa ko wax ne waxum borom patron wa alin ak al wa asabin biha ca salaatoog salaam ba yër fon lu ñu yëkkatee alxadr suñu dayo yal nañu yàlla defal salaatu salaam boo xam ne ba ñu ko defalee ci borom rëbb tey ba ci la ñu mën a yëkkatee suñu daraje yi kon nag gars yi misir yi moom itam def na salaatu salaam ah, ñi ngi ñaan nag ñi ngi waajal tay ba suñ demee tay ba dégg li li li yi ëmb bi li ñu ëmboon ci ëmb bi ak niñ ko imbee ngal la bu nga kenn demee nag demin wokk rek demin wii booy dem da nga war a xam la ngay fa ngay dem fa la fa tax a jóg buur dem topp li nga xamante ni mooy mbëmbax mi ak xumb yi am na ñoo xam ne buñ dikkee tay ba duñ jege sax kii dañuy dem ndax def seen géwul fox ba tey am na ñoo xam ne dañu dikk tay ba di fox te pegg nañ dem waaye tay loolu de tay ba xoolal naari rek fa demee rek naari buñ dikkee dem ba dikk ci ah eh, da kii bi penc bi même ñi ñi nga xam ne ñoo nekk ci ah di wër di wër di coow la xam nga nit ñi duñ déglu mooy mooy mooy kii nit ñi duñ ko sax déglu ñaa ngi ña ngi ma ñaa xoolante ba ñaa doxante ay caaxaan yoo xamante ni borom li nga maam colaay boo xam ne warul sax boo ko séenee ngay foog ne borom ngay jëm ca ah yëngu leen nga gis ñuy daagu ci digg mbedd mi ñaaw na trop loolu kuy taale bàyyi na ko bu jigéen ak góor rawatina jigéen ñi maa ngi ko leen bàyyi leen col yu ñaaw ca tey ba wallaay yéen a ngay lor borom Taïba ku ko def roy lor nga borom Taïba tey ñun nag nga dem ci dëkk dëkkab jàmbur au lieu nga tiraangaal ko yóbbuloo ko mburum gan lu mooy mburum ganam fo ak caaxaan dañ ko daw musiba bu rëy la dem ci xew yi bëri na waaye jëriñu gi bëri nañ seet nag bàyyi dafa bind benn lettre gërëm mag ñi nga xam ne benn lettre boo xam ne daf ne yéen kubaraaw yi ànd ak man maa ngi leen di gërëm spécial léegi nag nañ seet mag ñooñu nañ defoon ba bàyyi gërëm leen suñ defee nañ defoon rek ñun ñu gërëm waaye nag déedéet kenn ku ci nekk daal ah kulun walaay laahu li bara li bàyyi wax kulun kulun walaay laahu kenn ku nekk ak say taalibe ngeen bokk seen ruq di wax seen seen seen waxi caaxaan wax leen wax yi na wax yi nax wax ñoo xam ne xaal kaali kan gi mooy lan wax leen dëgg gi nañ génn ci digg digg pénc bi nañ waxante dëgg nañ bàyyi wanewu nañ bàyyi manifeste ci biir tey ba leen loo xam ne bokk na borom tey bi ni mu ko bëggee maa ngi leen dénk loolu maa ngi sant euh, Malben bi nga xam ne moo ko def pour bëgg leen ko manee gan yéen ñëpp di leen ñaanal nag ñun ñëpp yàlla ñu tey fekk ci euh, situation bu gën ci situation yi ñu dem ci jàmm ñibbi si jàmm xiwal feeñ fa sëriñ bi yàlla na yàlla wéral yaramam ak njaboot yu njabootu yaramu njaboot yëpp moom yaa xamante ni tey moom la fi yàlla teg yàlla yàlla delloo ay sagom ci léppam taxaw bi nga xam ne moom la taxaw ci kanam bàyyi ndaxte bàyyi mu ne wa fii tariqi ahmadun wa ahmadu naj laa yattama fihima ma aqsidu wa fii tariqi nekk na sama yoon boobu dafa doon tukki naj laaya aw la mu ne sama ñaari doom mu ne naj laaya mooy kan ahmadun wa ahmadu mooy ahmed daa mi dem yàlla ko yàlla yaram ak ahmed Cheikh Tidiane mi fi nekk tey yàlla ko yàlla guddal ak fanam te wéral ko ñoom ñaar ñi ngi ànd ak man mu ne naj laaya sama ñaari naj lu yéen dooma doom li tamma man na fiihima maa axsid li ma bëggoon ci ñoom yëpp matee na ko kon na ko am xalib boo xamante ni bàyyi nee na la ma bëggoon ci moom mat na waaye yow itam war a fexeel man nag yàlla yàlla may ak mat bi jaay seen ujoot allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-faatihi limaa ughliqa wal xaatimi limaa sabaqa naasiril haqqi bil haqqi wal haadii ilaa siraatikal mustaqiim wa alaa aalihi haqqa qadrihi wa miqdaarihi al-aziim subhaana